tey sama frère la seet muy Ablaye mu am lu bari lu ñu boole di jël dooleem nag di def ci Thiès te fii Thiès mouvement de soutien yi nag dañ fi am solo nga bokk ci mouvement yi nga xam ne que dañu am maanaa lool lool lool lool président ne moom ak parti allié yi moom Benno Bokk Yaakaar loolu gëpp nañ ko jaaral ci Benno Bokk Yaakaar liggéeyal ko ci Benno Bokk Yaakaar kenn mootul gagné sans pour sans coalition yéen ngeen ñëw ba jeex ci ci coalition mais il faut ñu njukkal. lu mu jàllee ci premier tour lu mu njëkk a def mooy tàllal loxoom askan wi waaye rawatina opposition. bi mu nangoo retrouvailles yi ak. Papa, le président Watt, toujours apaisement, gracier euh, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. a une dimension qui nous ñu man dama war a dem ci nit ndax limu wax bés bu nek unité and leen and leen mënu ma def lolu dul loolu. Thiès bu dalé lu fi bëgg mën nañ ko am. ndax da ngay xol tu es un homme d'affaires les investisseurs. fu amul jam luñu fa ñëw yi ñuy def itam ñi ngi am ndam rek ci buñu ñu nek ben di su déterminer parce que dama gëm résultat dama gëm conviction tay defe na ne ñoo fa sama staff ci gi jonne ñepp contane donc tay ñepp ñew nañ teew na le coordinateur mo dalal di ci yassine Diagne di sa mbokk di sa euh, la responsable des femmes Adja Marème Diop aussi dalal na la lu madame de ministre xewle yeen wa sig jonne na bu leen si kenn ndax ndaxte da am ben pacte alliance bo xamne mom len signé bobu li lepp amul mais lolou dañ ko def rek ndax loyauté ak franchise bi nga xamanteni mo nek sama diggante ak mom li day wane rek vous avez autour de toi euh, des personnes de valeur ño xamanteni dañ am engagement pour accompagner cette mission bi nga xamanteni mom la le

ndax président dafa la jox benn mission. mooy fédérer les forces pour que Benno Bokk Yaakaar gën a am taxawaay fii ci Thiès et je pense que ni yaa ngi si tànk boobu ku si nekk ngi toog di xaar naan gisuma responsable mais je pense que lii nga def bàyyi say activité sa calendrier chargé nga jóg ni dinaa dem def ay visite de courtoisie donc lii tey day gën a motiver les responsables les militants pour que ñu mën a xam kat Benno est toujours là et restera toujours là que pour l'intérêt du président de la République foo mënul yegg dinañ fa yegg. Nous avons aussi fait fa dem Mais ko derrière le président de la République Il ngay def apaiser la situation politique à Thiès j'appelle à l'unité la fédération que nous jëm nekk ay échéances yoo madame le ministre nous serons toujours à ta disposition pour le développement de Thiès mais aussi pour soutenir le président Macky Sall